jooja ndax Boun Abdallah Dionne mi réew mi jàpp ni moo gën a nooy Abdoulaye Daouda Diallo ci kanam Macky Sall nee na boo mayiwul moom la nu fay teg mu wuutu ko Lat Diop it léegi tey mu wuutu amadu Ba ma ndombal tànk ministère des sports ba fa Yankoba Diattara jugeeg léegi réew mi nee na ci remaniement la nu jëm du yàgg dara te ku mayiwul loola dana am ab lobby di kuréelu nit ñuy dox ay mbir ca suufa réew mi nee na ma ngay def ay kàttanam itam ngir docteur Macoumba Diouf toog ca bopp ministère de l'agriculture wuutu fa Aly Ngouille Ndiaye ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye mooma Mame Boye Diao ak da Daouda Diallo moom Aly Ngouille Ndiaye it génn APR nar ber daaray boppam Vox Populi samp wilew laaj sukkandiku nag ci lànk gu teggine gi mu wone démb ba muy dajeek président Macky Sall ndaje mooma yéenekaay bi di Vox Populi nee na lanu ca doon seentu lépp ca de waaye li am ba yéenekaay bi teg ci gët dinu ko xamal mooy gannaaw ba nu tànnee Amadou Ba ba tey gaayaa ngay fippoo nu ne Boun Abdallah Dionne daa fippoom déet bés bi nee na lum ci mën a doon daal dee ci wàllu politique lay bañ instinct de survie moom la ko yéenekaay bi gisal maanaam lu mën a xew rek moom na dundoo Abdoulaye Daouda Diallo moom ni ko Sud Quotidien gisee mooy casse-tête ci Macky Sall maanaam lu ëlëm lool président Macky Sall ndax taxawaayam gannaaw ba ñu tànnee Amadou Ba léegi Amadou Ba mooma sekk waxtaan wu yaatoo Quotidien national Le Soleil di ca wax la mu nar te mooy fexe li ñu sumb ci palang Sénégal émergent mu yeggali ko Amadou Ba nee na it ca APR ña fa nekk daanaka ay magak ak lañ te nag yemul ci ay kàddu kott moom gannaaw dialogue Mame Boye ma ngay teg ay gaay ak teggi jeu de chaise musicale ni la ko Vox Populi tuddee xamal ñu ne wujjug Mame Boye Diao ci wàllu politique moom la teg ca Lonaas di doomu Kolda bi di Doura Baldé Cheikh Issa Sall wuutu Mame Boye Diao ca bopp caisse de dépôts et consignations yëf yi nag day doog a tàmbali dong ndax l'observateur nee na ci remaniement la ñu jëm Macky Sall njeextalu ay bés bi ñu nekk la ko bëgg a def te xamal na ko jëwriñ ya démb ca conseil des ministres ba mu sekkoon ak ñoom direct news fësal ci xëtam gu njëkk Amadou Mame Boye Diao ak Birima Mangara ñu sekk Ousmane Sonko yéene kaay bi ne ñii ñëpp ay mbër la nu a doon ci élection présidentielle bi nu dëkkmal yéene kaay bi fàttali ne ñii ñëpp ay inspecteur des impôts itam lanu di laaj sax ndax Sénégal du mujjee doon réewum inspecteur des impôts Thierno Alassane Sall booba jamono ci critique mel ni ku naan Sénégal kay réewum politicien milliardaire la taas mooy dalee nii ci kaw way politique yi alal ba yegg ci lool moom

élection ci élection booba tribune gis ne benn Bokk Yaakaar mu ngi ci danger ca Jolof Fuuta ak Fuladu ndax foofa xar na ñaar Aminata Touré woowale coow maatam la ko fekk mu fay diggee ay coppite yu am solo bis bu nu ko falee ci boppub Sénégal yoor yoor bi nañu jamono jooja Sonko namm naa la jàng yëngal Sénégal way wii yennkaay bi nee na moo tere nelaw kilifay réew mi waaye li tere nelaw lii quotidien mooy hypertension jee ya muy def ca Touba yéene bi nee na dëkkub sax hypertendu ndax dëggal ne ko ñaar fukki nit yu wopp yoo jël fukk ya hypertension moo leen indi maanaam tension buy yeeg xale ya itam desuñu ca ginnaaw ndimbal la ñuy jébbal Maroc Serigne Mountakha Mbacké desu ca ginnaaw 24 heures nee na téeméeri million la xalif général des mourides génnee ngir dimbalee ko ñalooru ca suuf sa yëngu ca marok Maroc quotidien nañu booba jamono Sénégal immeuble yaa ngi wéy di fi màbb bi ci mujj Golf Sud la am bennub néew gisagum nañ ko ca bun sukkandikoo ci yéene kaay yu ma bi yéene libération nañu Ousseynou Bojang moom jéeyal la def ca Gàmbi policier te tegu ko fenn gaañ ca kenn waaye ci jululu lañu ko mujjee tegee loxo bëggoon ñu teg ko loxo moo taxoon président Adama Barrow ne benn million ci dalasi lay jox képp koo xam ne joxe nga xibaar gu mën a may ñu teg loxo nu Bodiang mi génne nañu ko Sénégal ba nu ko jàppee tegaat ko ci loxol Gambie bu sukkandikoo ci libération ñu ànd ak le témoin dugg si Ziguinchor ak naa yéenekaay bi fa la dem jox kàddu mbokki ñi faatu ci manifestation ya fa amoon ay seede daw yaram la yéenekaay l'observateur ànd ak yeneen yëgal ñu ne Diagne Ndiaye Pape François dalal na ko ba nuppi jibal ay ñaan ngir ndam dong mujj ci JOJ 2026 réew mi quotidien nañu Sénégal a ngay waajal yooyale JOJ ndax tàmbalee nu dàmp ñe nekkoon ca boori stade Iba Mar Diop te nu war leen a yëkkati réew mi ba mu noppee ci JOJ yi ay gëtam ci Aliou Cissé la ko teg la mu gis mooy mbetteel ak naqar wu entraîneur wi nekkee gannaaw defet wi nu jële jam ñaajo ci kanam Algérie woowale defet itam stade moom la xëy di jàngat di xool la ca baax la cay safaan